salam salam salam malikum ha wa senegal wa aduna Assane Fall menager mboy ma jaga ha tay nak dama contane torop torop torop wa waa way TV ha contane na torop da fan si tay daño dolel daño sagal daño sigil lu men 31 décembre artiste bi teug tay ki ngeen sal bi men tay contane na torop ha ah di leen souhaiter une bonne année heureuse ah di leen ko souhaiter xam nga di leen ñaanal ñu fekk ko ay deweni deweni déwéna kontaan naa trop trop tey Mboye Mandiaye boo gisee xam ne liggéey na daal liggéey na te maanaam liggéey doo nga wóor ñu koy ñaanal yàlla xam nga waaw kontaan rek maanaam kontaan rek parce que yombul euh, nit ñi kenn moomu leen mën ngaa lu ñu ci àdduna moom des ay nit kon Mboye Mandiaye dafa war a gën a góorgóorlu xam ne gars yi bëgg nañ ko yëg nañ ko te sagal nañ ko yàpp nañ ko daal te daaw dëgg yàlla ñun lañ jàppale kontaan nañ trop trop trop. en remercier sama staff ñom ñep ci melni Balla Mbaye Zab souleyman Moriata Modou salum ah ku lim da ngay joom dal kontan na torop torop torop tay taxaw nañ mooy jaag ah suñu mi ngi seen tay taxaw nañ di bobale ñu ngi rafet ñu ang rek répétition yaakaar naa deux semaines ngi ni noppalugu guñu fi yoon suba tamit le premier ñu ngi wara a fi ni jarame waaw xama kontan nga kontaan waaw waaw ñu ngi ñaan yàlla parce que affaire yi moom yoonu ndaw la rek yoonu ndaw du gaaw bu gaawee rek war ngaa tiit mi ngi liggéey mi ngi ci ay loxo xam nga ñu ngeen ñaan yàlla mu egg fii Papa Youssou Ndour egg mu egg fa ñaan nañ yàlla 2019 mu am album ñu dégg ko fu ñuy dégg suñu nawle yi mais tokk-tokk moo gën yuréet waxu olof laa la wax tokk-tokk moo gën yuréet lu xëy rek sotti rek baaxul kon daal ñu ñaanal ko 2019 yàlla defal ko li gën ci moom mi ngi liggéey te bés tey xam tey liggéey sama kàddu mujj mooy di ko sas di ko xamal ne ko àdduna sas nañ ko doomu waaye sas nañ ko surtout waa Baxdaad marché bu bees ma kenn ñëpp sas nañ ko moom nag moo war a góorgóorlu xam li mu bëgg xam ni gars yi ñu ngi ci ginnaawam fu mu nekk ñu fekk ko fa di ko ñaanal moom tamit gudd fan ah di ko ñaanal tamit yàlla wéral baatam waaw fu ñu dégg gars yëpp ñu dégg ko ba loolu daal la am moo koy sas mu gën a góor góorgóorlu xam mooy kan waaw waaw Guédiawaye Infos dama kontaan trop dama kontaan ci yéen parce que li ngeen def yombul euh, bi ma leen woowee yàggul mais da ngeen cee jàpp li boobu la yéen ci jàpp jàppale booy ma jaaga fayu ñu leen dara ngeen def déplacement dérangement yàq seen nelaw sama grand bi kon ñu ngi kontaan ci moom ñu ñaan yàlla yàlla bàyyi ñoom moom loolu la ñaan yàlla suñu borom quoi ba fi ñuy dégg gars ñu fi ànd ñoom ñu dagg bie di ànd ak yéen ñu dem torop dëggu fu ne waaw loolu daal kontaan nañ torop Guédiawaye TV ci kanam ca kaw ca